aywa li si yéen kaay yi dañ koy door ak ñetti doomi soldat Sénégal daanu sa toolu xare foofee ca Mali xibaar yi moo ci yéen yu bëri yu nu xëyandool source aanañu si xëtamu njëkk ñetti jàmbaar la yu bokk ci soldat Sénégal yi nu yóbbu ca Mali woto ba ñu duggoon mu jogi si ab ndell mu kalaate ñett ñoom faatu si saase yeneen juróom jële si ay gaañu-gaañu yu métti le témoin Walf Quotidien bis bi jour enquête la direct news ba ca libération di ñu wax na mbir ma demee ak fa mu xewee le quotidien bind la soldat Sénégal yi Mali ñeneen ñu dund geneen bëccëg gu weex tàll ji na nekk foofee ca Cambérène reddition appel bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi l'observateur nañu démb lañ ko ubbi ca Cambérène nit ñu bari jóge fu nekk daje foofee di ñaan jàmm ak dal ci réew mi laas yéene kaay nañu si xëtamu njëkk Seydina Issa Thiaw nekk coordonnateur comité d'organisation bu appel bu Seydina Limamou Laye ginnaaw nag bi mu jëlee ay kaddu lañ sa seetlu muy xam leen am réew munta avance benn yoon bu fa jàmm amul ñu pousaat tuuti ba si vox mooy indi développement ci am réew moom sëriñ bi teg nii jàmmi réew mi moo ngi ci kër kilifa diine kon du nangu benn yoon kenn di leen manqué de respect source a moom gis ne fitnay politique bi ñu nemmeeku ci réew mi waa Yoff amuñu ci lu leen neex benn yoon porte bi si yéene kaay bi ni mën a su la fexe ba nit duñu bëgg suñ kilifa diine yi tey itam duñu fexe ba doomu aadama duñ roy benn yoon ci kilifa diine yi li xew si réew mi moo di kilifa la si joxar bi baaraamu tuuma di kër saaga ak wax ñaaw ci réew mi directeur bu Ronas bi nekk itam responsable APR si Guédiawaye di wax ci journal ba tey bu nekkoon ministre de l'intérieur moom Ousmane Sonko dootul tegati tànkam foofee ca Touba ndax dëkkub Serigne Touba boobee di Touba ba Touba de Touba ba tey lañu fa nemmeeku moo ngi fay soog am te Ousmane Sonko moo ko fa indi ñu gisaat ba tey ci Les Échos ak Ousmane Sonko Adji Sarr ginnaaw càkkutee fi avocat yi lañ bëggoon chambre criminelle criminel gàntulee lu nu mel ñu nag yées at rek moo si nag li ñu nemmeeku ñu bari ci langue politique yi fara ci yeewu ngi fàkk yoon wa nga war a jaar ba mu nag ay ko fa cong ak bitik dajj ko yóbbu coffre fort ay millions yu bëri nekkoon ci lu mel boobee ba tey nag mu nekk jafe-jafe yu mit yoo xamante ne seen askanu mbaakul ñoo ngi koy dund boobee ba tey di ay càcc ak agression yu xew ci boobu la commune jërë ngeen jëf ñu yendu jàmm